alhamdulillah alhamdulillah ginaaw bañu sante yalla ya, julli ci sangu-sang yi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam amat contentement bu baax gi yeen ci sen sen bon bi di Waf Production fasiyene seenee ki yeen comme ni ñu koy defé sa sunu rek ci yonte yalla Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. ndax ñun eh, mom suñu dox ak suñu wax yépp mo yonent bi sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, di ñaanal xalifa sunu roy ci rew mi yépp yalla guddal sen fan guddal sen fan wéré sen ci ci bàkk yonte Muhammad di dem ba gab gawan di nuyu khalifa ba fa nek diko ñaanal gudd fan wer gi yaram Cheikh mohammed Diop ak njabot ga Cheikh abdul Khadir porte parole noonu ñu koy ñaanale it Serigne muntaha basirou mi nga xam mo fi togal Cheikhul Khadim yal na guddal fanam ci dem ci barke yent yalla Muhammad non ñu koy ñaanale Serigne babakar Sy Mansour ak sunu suñu jirew mi yep tay nak bu euh, mel dañ fi am suñu ben ndanan ndanan la nak ci bir ndanan waxuma la ndanan gi ndanan rek waaye ko xol sànceem rek nga xamne ndaanaan ku bu ñu nee ndaanaan la rek du am sikki sàkk muy sëñ Adama na bien euh, di ko di euh, am contentement bu baax a baax dalal ko fii ci palaato bi mu fas yéene ñoo um, bàkkal xasida mag ñi xasida sëriñ Tuubaa yi way yonte yàlla Muhammad ba xol yépp féex kon Adama nuyu naa la aouzu billahi shara rajim bismillahi rahmani rahim waltuf bina wa habibina wa kullana wa hablana uzal hitaami rabbana wa zallian ala nabi wa zallim waqdi bi haajati kulli muslim sëriñ Xaadim ñu ngi lay fay bu baax di am mbégte bu baax a baax ci émission bi macha allah ak déplacement bi ngeen def yëpp rek ñu ngi ci kontaane di leen masawu bu baax di am mbégte bu baax a baax pour toog waxtaan ak yow loolu moom sunu mbégte la ñu ngi lay ziare ba di ziare kull ku ñuy seetaan bawunu kenn. <laughs> ah kon Adama mu ngi noonu Adama présenté wu na kii mooy Cheikh Adama Nabien ñi euh, nga xam ne ku mën a woy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ku neex lu muy def. ah. ku mën sañse yaa xam wala dara mais nee naa ko man sa sañse moom moom may daaneel. <laughs> non gars yi de gars koy tooñe rek <laughs> waaye sañse moom bu doon bu doon njàngum français man ma ne ma. waaw ah. ah, damay doog a doog <laughs> dégg kon dégg li xam nga kon. bu doon bu doon bu doon njàngum français daal ma ne maa ngi ci sarday bi moom sañse moom. Ah. waaw waaw dafa bokk ci man daal. Eh, kon si Adama ay bala ñuy sori daal xam naa dañ lay bàyyi dañ lay bàyyi kàddu gi rek nga ne der rek ci xasaayit ñu xool ba fan nga mën a. ilayka yaa xayral bariyati salaam حديمك الذي كفيت الملام إليك يا خير البرية السلام حديمك الذي كفيت الملام صلى عليك عبد المسلام في الآل وسبي ربنا السلام خذ مقام الدون وكل مقام يا نور كل عبد سام وقام أنت الذي أعرجنا من السلام بكل نور من حبك بالكلام بصرك الجميل يا خير إمام فيما نويت سينسى تمام أنت النبي والرسول والخمام بك انحياد الصالحين بالسمام لك لنا بالورى كل مرام لك به يا سيدي أساترام جاد لنا باي تعالى المنام بك فأنت سيدي خير الأنام نويت شكرا عليك كل حام وكل سر والكتاب ندعم نويت شكرا عليك بحلام وحيرها يا سيد جوامع الكلام حديتي أذكر من بلا انسرام يا حائدا لإلهك المنام حديتي أذكر من بلا انسرام يا خائدا لإلهك المرام تبت ربي سائرا باسم لسان لك وخبل عبوت بعزام تبت لربي سائرا بسن سام لك به لك وحبل حبوت بسام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ah macha allah macha allah ku dégg Cheikh Adama li mu waaye nga xam ne xol yi tooy nañ lool macha allah ñiy seetaan Waf Production yëpp am nañ contentement bu baax ak mbégte ci ndaanaan moom bi ñu dalal muy Cheikh Adama waaw Adama moom bëgg la way ni ma Adama ni mu mënee way ak ni mu amee dégg ak euh, Adama ndaanaan la Adama loolu doonu la wala Adama lan la. ah Adama de gone la rek goo xam ne gu nekk ci xaside yi am ci bëgg am ci ngëm-ngëm lool am ci fulla nag. da mhm. nga caa war a am fulla. Mhm. ñoom yaakaar naa dama ci am fulla lool. Mhm. ragaluma ci dara daal. ndaxte danoo nekk ci réew moo xamante ni boo daree bëggee dara. Mhm. faaw nga def ci sa mhm. moo tax nit ñi bu ñuy wax wala bu ñuy def. Mhm. lu man di wax rek man sama ngëm-ngëm sama vision laa xool. ndax oto moom yaakaar naa bi nekk ci ginnaaw la ni klaxonné. te man dama ñeenti ñoo ma tax a jóg. rek ñoo ñoo tax maanaam xalaatuma dara tiituma dara. sama diggante Serigne Touba bu ci dara kii. sama digganteeg yàlla bu mu am benn benn jafe-jafe. sama digganteeg samay ñaari waajur. ñeent yooyu daal bu amul benn jafe-jafe waatuma leneen li nit ñi wax yëpp ak hmm. gaaruwaare yu yëpp maanaam ndax kenn ku ne li mu ci man ñi hmm. sañse moo la neex ñi ni may jànge hmm. ñi samay feem loolu loolu la yàlla dogal macha allah macha allah loolu rek am solo macha allah comme loolu nga wax rek ndax sëñ Mansour borom daara ji daan wax naan ku soo bëggee dara da ngay def ci dara ji dara waaye soo bëggee dara te doo doo dara ji dara doo am ci dara ji dara kon nag Adama yaakaar naa dina am ci dara ji dara ndax moom am na fu la ci dem nekk macha allah ndax euh, ku dégg ni mu waxee ak ni mu léegi nga xam ne euh, yar nañ ko euh, ku ñu jàngal la ku xam lu muy wax la ndax macha allah dina di nga fa nga wax nit sax muy xaw a wax wax yoo xam ne doo doo doo comprendre waaye moom moom li muy wax tegu na si yoon macha allah. ndeysaan allah min si loolu rek la ñuy sàkku rek ndax ay ndaw lañ yoo xam ne chaque jour dañuy gëstu. <laughs> li may wax rek man moom ku ma nekkal maa ngi xool lu ma jàng ci yow ndax damaa fonk nit. Mhm. te xam naa ne nit lu mu xeebu xeebu am na lu yàlla def ci moom. Mhm. man ne damay bàyyi xel lépp rek. Mhm. te ma dee seetaantal sa maa ngi xool lu ma ca bàyyi xel. Ah, di nga gis yenn saa nit boo ko dégloo muy wax mën na wax ju baax na ko ndax yàlla bindut nit ku bon ni tey saytaane moo koy jàpp rek. saa yu ma seetaantale. wala ma gis ci internet bi benn waaye bu ñàkk solo. mais dama koy toog déglu ko jël sama temps. xam naa lu mu ñàkk ñàkk solo dina dina rëccale ba wax kàddu goo xamante ni ba defee nga mën caa jëriñu. wallaay wallaay analyser ko mën cee jàng. waaw loolu ndax mag ñi dañuy wax ne xam-xam soriwul. wallaay foofu laa xam-xam soriwul dafa nëbbatu ndax des fois euh, Euh, suñu mbokk musicien yi defa nga deglu ci kenn bu wax wax bo xamne yow li ngay jang jang dara wala li ngay jang jang xam-xam wax bobu man nga dundu ba de te yow sa xel du ca dem te mom mu wax ko yow nga deg ko sa xel du ca dem ci bo xoolee suñu xalim ki metta bu ñu nekk rek mhm. yow sam xel day wad di dal ci lu bari mhm. yalla lo bëgg mu ne man la ko may mhm. yalla dafa nek lo xa jam bo xam dafa bëgg jam lo bëgg lu ne rek man la ko may nak da ngay gis ko xani ya footballeur la wala musicien wala léegu ci dara da ngay tok di sétal muy wax yitte jim def ci ci lool non nga gis ko mu jariñu muy wax yitte ji des kon yow mi nekk ci lu baax yaakaar naa ne yitte jooju boo ko ca defee. Mhm. li nga bëgg mën nga ko am. wallaay ndeysaan kon nag euh, kon yéen a ko déggandoo kon euh, Cheikh Adama li mu wax wax ju am solo jooju mu wax wax wax balaa bala ñu sori xam naa dañuy dañuy dañuy rek jaar foofu rek euh, gërëm bu baax waa atelier Nabiye nga xam ne ñoom ñoo ngi jàpp seen bis. le 18 juin incha allah nga xam ne dañoo fa yéene tàntal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku mel ni Biram Fallou Gueye Diomaye ñu gën ko Ibrahima Diomaye ñu Ibrahima ñu gën ko xam ci Diomaye ak euh, Ibrahima Diouf Ibrahima ba ca des euh, Ibrahima Wele Ibrahima Niang ñoom nga xam ne Ablaye Sow euh, Mama Niang ñoom nga xam ne ñoo ngi programme seen programme jàpp ko le 18 juillet incha allah xam naa dañ fay jaar rek woo ca ñëpp incha allah takkusaanu Seydina Muhammad sallallahu Adama uh-huh. la yàlla dogal incha allah loolu sunu bis bala muy sori xam na Adama lan ngay soñu nabiyen yi nga xam ne comme ay jeunes lañ sa jeunes yi nekk ci réew mi te doon ay nabiyen ñu dëgg yonente bi képp ku ciy tàgg yonent bi daal jàppal da ngaa war a xam ne yow. li nga yor li nga yor wurus la. nga war a xam sa bopp baa xam yow yaay kan. ca bañ a yàkkamti dara. ndax kenn du julli waxtu jotagul. waaye boo xëyee xëy rek commencé bëgg xëy àgg day métti. yàlla lépp da ko tasa tracé. bañ nekk ba jour yi dafa def samedi dimanche vendredi mercredi jeudi ba ba ba mu mhm. àgg. waxtu julli da ngay toog ñu ne tey fajar. Mhm. ak leneen ak leneen. waaye mhm. tey boo bëggee doon nabiyee wala nga bëgg doon jànkatu xasaay wala nga bëgg doon xëy xëy bëgg àgg day jafe mhm. boo ci bëggee jëriñoo da ngay fonk nit ñi mhm. fonkal nit ñi bu baax a baax a baax mhm. fexeel nga am personnalité sa bopp xam yow yaay kan la ci woyof lool nit koo gis jox ko wàcc waayam ndax nit ñi ñooy say patron ndax tey baas gi lu mu riis riis bu fa kenn niw doo jàng yaakaar naa faaw nit ñi ñoo nga doog a mën a jàng kon nag li ma leen di dénk moo di nan wàcc suñu bopp bu baax a baax a baax oyof Mm-hmm. ndaxte mën ngaa rëy mbubb lool te du teree oyof nga oyof lool. Mm-hmm. boo demee ci baas jox nit ñi seen wàccuwaay boo rombee nit ñi di leen bàyyi xel di leen nuyu ba ci xale yu ndaw yi ndax bëgg trop hmm, hmm, hmm. kon nag a jëriñ daal bàyyil xel nit ñi bu na solo te dénkaane bu am solo la euh, yi yëpp war nañu foofu jaare foofu dégg bu baax a baax euh, wax jooj noonu ndax ñun ay royuwaay lañ war di doon képp koo xam ne yaa ngi ne da jug pour tag yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam war nga doon royuwaay nga xam ne ku la seen ku ne gis ci yow yonent bi sallallahu alayhi mooy li sëñ Adama wax wax legi kon xam bu ñu sori rek suñu adam dañ koy joxat rek mu ne wat ci bo gëna neex rek da bu gëna neex rek waaw kay mom xam ndax mom xam na yëpp ma neex waaye na la der na la der ci rek waaw xam bi la fu mu jëm daal wax na malaktu bi rabbi mo jëlal mo wal yammi bi بمرخي الذي أنزى زال فلك كالخمي ملكت بربي موح كل الموج واليمي بمرخي الذي أنزى زال فلك كالخمي مرامي وخاجاتي لربي توجهت بأمر وسكر كان كانت بسكمي مرادي كوني عبد ربي خديم أمان وهاتي باب سكران بساس مساك يا كل لدى مساك يا كل لدى مساك يا كل لدى كل خرجلت ولكن جلت عن سيري والنسل مخامات خير الخلق مخامات خير الخلق عن خير رحمهم محبات فلتقرأ عن سورة النجم محمد المطرية محمد المطر محمد المطر لا خلق مثله عليه السلام عمل الأمر كالحكم محمد المهروف ماء ومعنى وبالاسم محسوس معصوم للوسم مجيب مجاب مرتدا مولك الهدى مليخ ومعصوم من الناس والوهم مدينة حلم أنا كسوف يا رسول الله يعني ما محمد رسول الله مدينة حلم مرتجا منة لنا جريء ومنجن من سنة سنوب ومن سنب ما الله ما الله عني بالنبي كل فاسد وسرت بعبدا خديما بلا هام من الله من الله رب العرش أبقي صلاته بتسليمه للمصطفى معجل اليمين macha allah macha allah sëñ Adama est-ce que xam nga ne kontaan naa. ah la gën a bëgg. wallaay kontaan naa ah, macha am sëg moom a jàpp ba nga xam ne li may woy sama koy sant. <laughs> ah day gën a yaatu ma xam naa bi suñu kon tey plateau bi xam naa ne dañuy dañuy mujj rek. rajaxoo waaye incha allah day gën a kii. <laughs> incha allah dugg ci bi dugg ci Serigne Saliou. macha allah bala ñoo macha allah ñaan incha allah. Ah. wallaay. <laughs> incha allah waaw Adama moom bëgg nañu xam Adama li li Adama ni mu mënee way Adama loolu ngéwél la wala Adama lan la. <laughs> non pourtant du ma géwél de pourtant man mënu ko ma way di suñu xarit. barki borom doom mënu ko maa jàng sax. Ah. wallaahi ngëm-ngëm boobu la am Ah. man damaa jàpp ne mënuguma mënugumaa jàng wóor na Serigne Touba li ma wax léegi rek damaa jàpp ne njàng moom bu doon njàng français mhm. ma ne man maa ngi ci sàddee bi mhm. wóor na borom Touba macha allah moom maa la ko wax moom ah kon kon kon yéego dégg na Adama man Adama am na dégg bu ma jàngee fenn sa fàtte ko lu mu neex neex neex tey fàtte ne sa jàngoon naa ko maa ngi xool <laughs> wóor na seen jàng bu barki borom Touba foofu daal laa nekk. Mhm. loolu daal la yàlla dogal moom. Mhm. Adama ma bëgg a xam Adama Adama nan lay dunde ak ak ak soppe yi ndax uh, sopp dafa dafa lii ndax sopp dafa dafa garaaw nit nga xam ne day yàq temps yëpp nga xam ne mën na ñëw ci baas xamul yow ci loo nekk yow man nga tëdd di nelaw mën nga nekk di reer baa nga nekk si leneen mais moom mu ñëw ci baas bi toog di la xaar tant que Adama ñëwul moom du génn baas bi Adama nan lay dundee ak soppe yooyu noonu. ndeysaan soppee non di len baye xel di len béggee bu baax baax rek barki dem rek dal na ma ndeysaan dangal ma suñu asman ko ziar bu baax sama soppee bu baax bobu ma sha allah di siyaar suñu Abdou Thiam bu baax baax di ko ndokkeel ci bisam bobu dafa def luma marqué mom suñu as ndax keroog dama jangi ndàngal ma mhm. ñëw tok toogaay bi yagul ma genn di yes loog yooyu mu ak man mu daal di dajeeg mu daal di ak man suñu as daal di ak man mhm. daal di wax ma wax ju am solo ne ma Dakar la joge minu la ak dama ñew rek ya mu fi indi dama ñew rek xol yaa bass bi. Mhm. ma ñew tok ni di la xaar. macha allah. sam jang rek mo fi indi. ci mhm. yow bo jangut sax man na tok rek nga tok ci bass gi ma tok di la xaar xam nga lo dafa wallahi wallahi wallahi ci yar ba wax joji daf ma marqué trop. Mhm. tok ci bass ba ma war a commencé jàng ñëw dugg si. ñëw yëkkati yam ju bari di mako jox. ndeysaan ma ngoy koy ziare bu ma dama soppé dama leen di bëgg. ndax ñom la ñom ñomay dégg may déglu. moo bëgg rek jappal na ma la lool mu yalla defal na ko. siyaar ma kon ba lañu sori duggal ñu ci yonent bi tuti محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله محمد رسول الله سيدنا محمد باي فاطمة روكي روقيا باي أم كلثوم زينب محمد يا رسول الله سيدي خادم كله يا كاري نسم خلدم محمد رسول الله moom rek a taaru fa yàlla wàcceel ko saaru yàlla si Muhammad Rasulillah sëñ Xaadim ku lay jaay jaare ne sama xel dem ci Xaadim kookaa gi ni sama mi yaa waawaar yàlla woon la yaasin Muhammad Rasulillah ku lay jaay tànn sama xel dem ci yaasin imaamul mursalin na waawaa ki leen di yaasin Seydina Muhammad turum ya mat ma ñaar téeméeri tur wa iqda yaram dara ila xiraati yaasin muhammadu rasulillahi kii moo di yaaram doom yaaram doom yaaram sa duma ki tàng madina duma sum yaaram muhammadu rasulillahi diglul ma wax la ni ba saayoo woot dégg nga dim leet dafa yaasin muhammadu ya rasulillahi déglul ma wax la ni yónni nañ ci saayir ba saayir tuddee ngeen gi ne tudd fay yaasin muhammadu rasulillahi déglul ma li ma la maam yaasin seydina muhammad xuseynun ak kilaabu ñoo ñaari maama wa murata seeni taara ngi ni yaasin wa kaabun ak lu awoon dégg xaalis kay taaru ca ba taaru yaasin muhammadu rasulillah jiile seex jiile waaw jiili mooy yàlla la a meri baat jàpp ca leeri muhammadu rasulillahi ki moo di yaasin seydina muhammad muhammadu rasulillahi derub taanam ba moonu suur ñun ba duni mooy bu doon kon a xaasim sëriñ la nii ngir doon fa yaasin yow seydina muhammad jikkoom dafa yéemu mi na mbaraw am xel jamaala aw kamalan kenn dafi mel ni yaa rasulillah muhammad yaa rasulillah ku dul ba ne sell waajur aussi dëjtey ka defum abdun ba taxana jam fa yaasi seydina muhammad guddul ba ne sel waajur ko seen dëjtey ka waa deful abdun ba taxana jam fa yaasi muhammad ya rasulillah ruyit ni fatax ne gaaye dox di ngat di ngat ba mel ni baa mi tukkal fa yaasi seydina muhammad ma ngay saf ko mbalit ci sew ba ne rucc soof jantu xasam moo waay yaasin muhammadu rasulillahi ku lëngoog moom mu sànni la ca nga di doowaat ku tukki ma boole nga des fa yaasin seydina muhammad wetam dafa njaañi biram sew mu xeereer wetam dafa njaañi biram sew mu xeereer la sul noojul lexi na laaj fa yaasin muhammadu rasulillah ndigam la ne xiiji ndigal tama lu ci moolul ca doq ga def na yoru di fa yaasin sidina Muhammad ndiggam la dana xiji digal dama lu jëmmal ca dox ba def na yólu bi sambar fa yaasu muhammadu rasulillah kanamam gaa gangé sa wéru badri dëri jëmb di wëndeelu di mer xet fa yaasu muhammadu ya rasulillah lorom ya mo dàq sukar dàq ak lee masala masala ah masala si adamaus Adama kontaan naa lool wallaay kontaan naa macha allah kontaan naa lool eh, xam naa rek li ñu cëlee ci waxtu moo xaw a jege si mm. comme ni ñu koy defee saa su ne rek santaat yàlla bu baax a baax julliwaat ci sangu-sangu yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam santaat bu baax ñu ñaari waajur muy soxna Xadi Seen si Abdoulaye Ndiaye di leen ñaanal gudd fan di ñaanal waa Njaajaan yépp yàlla na yàlla guddal seen fan wéral seen cër si barke yonent yàlla Muhammad di ku mel ne suñu soppe Ibrahima Diouf <laughs> moom ne fu ma toll nii daf naa ma deel tudd njaajaan dama tuddal njaajaan kon nag dama koy tuddal njaajaan ba mu neex c'est Ibrahima yow guddal fan yow jàmm rek nga war a am ak suñu mag yu baax yi fa nekk yëpp muy aussi nu Ndiaye Pape Ndiaye mm, Mamor suñu rakk ya mm, imam ah, sama sama turandoo <laughs> maa ngi bu baax baax a baax di ziar bu baax a baax sëñ Modou Ndiaye suñu rakk suñu bàyyi fa nekk bàyyi Xabbaat Ndiaye euh, bàyyi Galas Ndiaye soxna Njabu Ndaw ak ñoom soxna Fatou Dieye soxna khadifal Fall soxna Mbaye ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baaxa baax di leen bége macha allah di ñaanal yalla yalla yalla gudd seen fan wér seen cër ci barku yent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam di non lañuy ñuy nuyoowaat khalifa sun roy ci réew mi yëpp di leen ñaanal yalla yalla guddal seen fan wér seen cër yalla yir ñu ar ñu ci barku yent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam lañ koy ñaanalee suñu xarit suñu mag suñu lépp alaaji mañan momit yalla yalla guddal fan wér cëram ci barku yent yalla Muhammad ndax nit ku baax la ku oyof ku oyofal boppam borom waaf production macha allah ku bëgg ci xam naa gars yi nga xam dañuy bëgg ci son yu baax yi son yeeg ñoom vidéo yi ñoom seen ku mel ni suñu aadama ñu jàkkaarloo suñu bañaan rek bu def bu defee mu defal leen ba mu ba mu ba mu baax incha allah ndax moom mën na li muy def loolu macha allah yàlla bu yàlla guddal fan wéracëri ci barke yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam xam naa rek uh, foofu la ñu jaar yëkkati antenne bi rek di ziar bu baax waa yaraax it ndax uh, mënuñu ziar te ziaruñu waa yaraax nga nga xam n foofu lañ jugee nga xam ne am nañ fa ay yaay ak i baay da xam nit moom lii am solo mooy ci àdduna mooy foo nekk rek wane fa yar ak teggin ak dal loolu rek moo am solo ndax euh, mag ñi dañuy faral di wax ne foo nekk yaru fa di nga fa am yaay am fa baay kon nag am nañ fay yaay am fay baay euh, di gërëm bu baax ku mel ni euh, soxna Oumy Diouf ak njabootam yépp macha allah ak ay def Sëñ Saaliw ndax démb rek muy kaas nee na naa ko tudd ci émission bi ay def Sëñ Saaliw ak ca côté ba aram di ziar ñëpp waa yarax yépp macha allah waaw ku ku waaw temps moo xat rek kon xam sëñ Adama mo mo mo gërëm ñi mujj gërëm rek daal di yëkkati sëñ Saliou rek ñu jaar fa yëkkati jotaay bi inshallah allah bay ah, kon nag di sant waa koñ bu baax baax ndax mo yalla daal def koñ bi dañ bëgg rawatina na xalé nekk ba xale yi ñoo ma tudde Serigne baara ñu mo ma doon seet tey boobu Serigne baara do ma gis mhm. di jaar di sëñ Cheikh na ay daal nga xam mo mo war lépp ñaan jam ko ñaan tawfeex bu baax mhm. sama mag la sama xarit la sama lépp la mhm. maa nga koy baax di jaar ñëpp rek moom du kenn rek xam lay dañuy ci Serigne Saliou rek ah kon baax na ñu daal di yëkkati jotaay bi inshallah للخطب الوجور والمسال بتي والجسم وإني سالوا سني سالم مكة دلالي جو واي دمم كيد دلالي جو سني سالم كيد سجل دقال سباك بابا وكوكو دي سالم سالم Sëriñ Seex Saaliw maa ngi lay jaar waaw sa waajum waa Sëriñ La communauté mouridisme se trouve dans une immense solitude de Mam Salim, wow, oh, wow, oh, wow, oh, Srim Salim. La vie de soi ne connaît pas, ne connaît pas de bons wow, ni de mauvaises. Ay Srim Salim Mbacke, mhm. àddina yàgg na la woor, xamal baax moo valeur. Lu fi taxaw lay dana ko wow, war nañu yóbbu Srim def. xiyaamana kafta maana wawaar adduna lum diiti def day doonoo na yóbbu na sunu waaji sëriñ Saaliw mm-hmm. adduna boo xarit bàyyi naa la boo doon bokk baa doomi ndey man bàyyi naa la sëriñ Saaliw Mbàkke mm-hmm. alxames si ngoon la waru sëriñ Seex nan ko sallaw di dama bëgg nga wax gone ñu baax ji togg aw ñam joxe ko waaw ke sa ke sara te jubal yalla waay te jang alquran yalla ma man bari sali wo wo wo ma yag fi lol nekke boba serigne sal mbacke day ta to ya waay ngi bi aljanna serigne sal la ilaha illallah fal la ilaha illallah hmm. la ilaha illallah hmm. fala ñu ngi lu baax. di ziare waa Njaañ Lamba yëpp rek boobu leen. sama mbokk taalibe di ziare bu baax nag suñu xarit. ah macha kon mu ngi doon jox dig daje incha allah eh, bu rendez-vous ba beneen yoon beneen samedi incha ñu comme ci plateau yu mel nii ci wax Production incha allah ñu bëggalante ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam